ngi laa dégg bu baax a baax a baax euh, kon kon comme comme foofoo ngi wàcc kon nag li ma la mën a xamal moo di porte bi tabarkaala moom tamit euh, mu ngi mel ni euh, sabaru pont tey fu waay dëgg sa tànk rek dootoo ko defati ndax tabarkaala Assane jóob moo xewle kan mooy Assane Diop ñu ne doomu baay Murid Diop euh, tabarkaala ajaratu maama Mbay moom la ñoo woowee yaayam moom mi nga xamante ni tabarkaala teel a dem la ñuy jooy ci moom tey nag bu ngeen gisee Sicap Mbao tey xam ne tey lu doy waar moo fi am ndax gis ngeen ba léegi façon sañse yi gis ngeen li nga xamante ni moo fi waaye nag li ci gën a neex ba neex mooy damaa gis Euh, ki nga xamante ni si moo di soxna borom bis bi di cekka euh, ah mu nga ne may mu nga ne may seen tabarkalla ànd ak euh, ànd ak taawu baay Jóob Masi ah, cekka aca ñëwal tabarkaala mu ànd ak euh, taaw ba si Fatou Mama maa ngi leen seen nale tabarkaala ñu def euh, sañsa yu baax ah ànd ak tamit nday soxna ñëw leen ñëw leen ñëw leen ànd ak nday soxna tamit tabarkaala mu doon loo xamante ni si euh, tey daal bis bi ala daw me na ndax boo gisee sañsa yi fi jot am nii nga xamante ni tabarkaala dëgg neexul ci ci waaw mag sama ñëwal nii waaw si yow laay njëkkee yow mi nga xamante ni tabaarkaala mag nga ci Assane Diop tey nag mu woote bis bi ah, du ma ne si Kamba waaye Sénégal ñëpp ñu war war a ñëw wuy si ko tey nan nga gisee gi bis bi yaay booy. bisimilah rahmaani rahiim barke sëriñ Fall auzu billaahi mina seytaani rajiim laa xawla wala xawata illaa billaahi azim Assane langam gii mu commencé bisimilah rahmaani yàlla na dund ba mu yeggalee ko alhamdulilah rabil aalamiina. tubaar fakàlla macha allah daa bàyyi koñam nag ñëw ba Sikaab. bi mu ñëwee ba sikaab ñëw defe si ko fi yàlla bu mu réccu lu mu fi doon ñëwee ci daraje yonent xaritam am di jàmmam yi ndax ci suba bi ma fi ñëwee sama yaram dafa daw ndax Assane àndut ak baadoola àndut ak wëyu bu àndoon ak baadoola wala wëyu tey bi ma ñëwee ci man am déception mais tubaar fakkaal la macha allah aw ma déception waaye laaw la cet nag maam ma naaree yaayam mbay ma xujja biram góor xujja booy maamu njaay biram bi xujja mamu njaay burba jolof naqar la fi bàyyi waaye bàyyi fi gàcce Assane bu góor góorgóorloo tubaar fakal macha allah day dem ndax it nag amul benn maamu como maam ju ma am rek moo daan jiinal Alboury jax jaxe ko ba yaramam daw Alboury génn nee ko tubaar fakal macha allah affaire bi di doon nag ci moom bu ko yàlla lafalee cat rek yàlla nañu yàlla may liñ ci bëgg daraje yonent yàlla Muhammad yàlla mën na ko yàlla na ko sama borom bi def waaye Modou Diobay baayam njugoma fa njare saala xari ngoone maam Gana Birane Diop dafa nekk Fass Mbao nag di dog bu mu gàcce yi uufuk njabootam bëgguñu ñu xiif bëggul ñu mar bëggul ñu rafle demuñu fenn jàquñu wala ñu am lu naqare ba dem ci kër nijaay wala kër bàjjen ñun ñëpp ñi ngi ci kanamam tubaar fakkàlla macha allah ñëw na fi ci suba aalu jaa ñaanal ko te ñaan goog yàlla na ko sama borom bi dégg ci Ablaye Boy ñaan googu yàlla na ko sunu borom dégg ma jàkkaarloo nag ki nga xamante ni moo di soxna borom bis bi ah, di ceeka séeri asan Diop ah ceeka tey sa noir baax na nga sànni ca biir argenté dëgg neexul nii rek la mën a demee ndax ah, xam nu ko olof Ndiaye waxatee ah, ku ku ku wal mburu tuddub dëkk. waaw bismilaahi mina seytaani rajiim ginnaaw ma sante yàlla julli ci yonent bi may ñaana samay ñaari waajur yàlla yërëm leen xaraleen ci àjjana ah di sant nag Assane Diop. njuga mi fi njaree ku baax ku yaatu ku ñeme njaboot mm-hmm. maa ngi koy ñaanal lu mu yootu ren rek bu déwénee yàlla na mu du ko ndax ñaari at yi jàll yëpp mu ngi koy defee si sam sam talimaam jaara waaye tey da ko indi si kaam mm-hmm. waa day raam rek mm-hmm. yàlla nañ dund ba mu jóg taxaw tam ñëpp fekke ko mu dem grand théâtre waa di sant Fatma ma nag taaw yaayam bii nga xam ne jooyu ñu dara namuñu dara nag Ah, sant Ndeye Soxna Ndiaye sama mag ji gawloog ma mbay Ndiaye ah fu ma gëstoo gis ko rek sama xel dem sama yaay aji ah, mi séeri Pape Sène mhm. ah, ku baax moom tamit sonn ci bis ba bëgg dee waaw maa ngi sant ñëpp daal di ziar. waaw mais tey nan nga yendoo ak Assane wàccaay bis beeg dugg beeg génn beeg togg beeg yàq beeg yooyu. waaw waaw tubaar fa kàlla macha allah suba ba tey nag ñoo ngi ci awa sekk nekk ca waañoon ñoom day màgget ah, ñu togg añ bu neex tànn xay ah ñu jàpp ji dañoo def ba mu baax tubaar fa kàlla togg suñu ceeb yu baax ah yéen ko indi si kaab bi ñëwee fekk nan na koy togg añam yu baax ah fii daal dara doyul daal moom defar nañ ba mu baax. kon daal comme tàmbali nañ yàlla na eggale ci alhamdulillahi ya ko deg noonu gis nga ci biti tabarakallah mu ngi mu ngi jax comme ni nga ko waxe noonu ci bir eh, dama bëgg nak nga continuer watal ma ci bir xolal ma toogaay sañse ni ñu toogee fofu ak ni nga xamanteni tabarakallah ah, non lañ koy doxale fofu ma togaat fi ci kanam ba ci kanam nak ndax xamna ne gan ñaa ngi ñëw su ko defé ma dalal leen ci anam ba nga xamanteni non la gëna rafété ñu and ak elvision media Serigne saliw nekk ci caméra bi acca nañu dem ci biir tak docteur tamit luma la mën te wax rek ah, mën na ne nag fi mu ngi wàccee nu ne ci kër àdduna ndax xale yi ñu ngi ma sha allah xale yi ñu ngi fol ba folaale mun naa ne ah, fi ma nek daal ah, mo ngi wàcc xamaguma nak lan mo nek ci biti nee naa ah, damay daari dem rek xol xale yi duñ toog dëgg neexul. alors sur ce di wax communauté Sicap Mbao préparez-vous attachez vos ceintures et déplacez-vous tout doux doucement jaagar-jaagar passé fas ñeu ñu commencer li nga xamante moy programme bi ak Assane Diop Souroulé. doo saana kuma ndaw kaay waaw waaw waaw lay la la la ay képp ku fi teewoo man mii kontaan naa ci waye papa yow yow ya ci raw yéen a ngi ñëw rek jaayee ah bëgg naa loo waaw. ndeysaan wolwa samba doma doomu ne yu Mustapha Kanté ay ci ka don sala yaay doo a acca ba tey Zé bala maa dem nag dama gis ndaanaan boo xamante ni tabaarkàlla Mamor la ñu ko woowee ah, sëñ Mamor bisimilah moom it ñëw it mu ñëw ci bis bi nga xamante ni moom la Assane Diop woote tabaarkàlla ah, sang bi ginnaaw bi ma la nuyoo ba pare ah, tey nan nga yëgee bis bi nga xamante ni moom la Assane Diop woote fii ci Sicap Mbao waaw nun ko yëgee Assane def ñu invité nekk suñu nit nekk ku baax ku bëgg ñëpp xale bu ndaw mën a kaa tàddeel fu ne te ñun li ñu déranger yombul quoi lu ñu déplacé tamit yombul daal kon moom bu amee bësam bi ndax nit amul lu dul bësam nit kenn du ko xewal bësam ak ak waajuram ak sëriñam te Assane daa baax li jomb ko quoi il faut mu am lu mel ni ak lu raw lii te li ci kanam raw li bët moom day dem ci kaw ci kanam ci lu baax Baye Fall Pire la moom daal. ba tey mu ngi noonu Baye Fall Pire la waaye nag boo gisee mag ñi tamit ndaw yaa ngi ci bis bi ndax Assane Diop ni ma leen ko waxee rek dafa alaa daw me euh, ni muy ni muy sonne ci mag ñi noonu lay sonne ci ndaw ñi ba ba tax na boo gisee euh, xale yëpp a ngi fii taxaw ñoom tamit euh, ñëw ci bisu Assane bi tabarkaala sëñ noo tudd man Amadou laa tudd. Amadou tey Assane Diop la yëkkati. waaw moo ñu yëkkati waaw ñu jige siñ koñ def siñ délégation pour ñëw. Mm-hmm. mais xam nga rek comme dab comme chaque année lii la ko doon def quoi. Mm-hmm. gratuite moo tax ñu ñëwoon pour xool. Mm-hmm. lay ñëw fekk mu nekk entrée fekk préparé wu woon lii quoi xam nga rek ñoo préparé ñëw teew xam nga rek mu gën a nice quoi. jeex na su ma duggee léegi dinaa ko jàllale yéen ñëpp ngeen dugg. incha allah waaw amul problème. même buñ duggul ñun mën nañ ko seen rafet na ba pare. acca mu ngi noonu Saliou topp ma tey ñu dem ci biir eggali euh, li nga xamante ni si tabarkaala moom lañ fi ñëw tey ndax Assane Diop a woote te bu Assane Diop wootee mën naa ne la dara du yomb kon nag nañu dem ci biir eggali. Cheikh Mbacké neexu leenam sama gar mi neexu leenam Cheikh Mbacké balak maaram e ko bëgg sëñ Fallou waay yaay Fallou Ndofène yaa ngi nii Joli Sarr i Joli Sarr Mariama bàkk naa la waaw waaw Cheikh man de suma lay way sama jigéen baa man de bàkk naa la ay dëgg macha allah tabarkàlla comme ni ma leen ko waxee woon rek fii mu ngi wàccee ñu ne ci kër xale yaa ngi toog nag di xaar li nga xam ne moo nekk Asana euh, soxna si nuyu naa la. ça va nu mu demee. mbaa xewoo li nga sañse merci beaucoup. ku waral tey lii. naa Assane. tey moom nga teewal si bis bi. nga teew na ku baax la macha allah lu baax rek laa ko xamal. moom commencé nañu bis bi bisimilah rahmaani rahiim na ko egg alhamdulilah man daal nee naa ku wër euh, ku mel ni yow rek euh, laay daal di euh, wër ba tey nee naa du ma bàyyi benn yoon ah, damay daal di doxoon ndax tey am fam loo xam ne dama ko fi gis ndax nee naa puissance du ne lay loqati damay daal di daagu ndànk rek saal yu nga daal may topp comme nu ma koy waxee naan allah rek topp ma. tumata boy li lay woo yaay boy li bàkk naa la e sopp yaay boy li waaye faatumata sa loxo ca kaw macha allah comme ni ma leen ko waxoon euh, naa ngeen ànd Sister Zeyna la puissance xale bi nga xam ne mooy loqatu ne ma ñëw fekk fi euh, sunu papa ñëw fekk fi sunu maam euh, chéri nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay bu baax. waaw tey mooy gis la nga daal di dugg si daal di ñëw teewal li nga xam ne moo nekk sa doom. waaw li tax ma ñëw Assane day sama doom. am ngërëmal baay am ngërëmal nay te jot kenn amatu ko léegi waa ne Assane man te xewle bis te manuma cee mën a teew te ma ak sama sago ndax day doom joo xam ne doom ju ma gërëm la doom ju ma sant ndax wax dëgg yàlla aw ma jot waa nag il faut que ma jéem koo fay borom ba xam ni mu nekkee man dara ñaawu ci ndax nit bu fekkee ne da am say waajur respecté sa waajur bu dara lu ko metti bu dara lu ko jaaxal jege sa baay lool bëgg sa baay lool kooku man it def lu dul jéem koo sigil te moom bu doon Abidjan it dinaa jéem a dem war wan ni ko rek kontaan naa ndax dama suma biir wax dama naan ñaar jaruñoo defal dara ab dof ak ku iñaan ndax dof bi loo ko defal xamu ko ku iñaan loo ko defal ku ne kii sañu koo bañ war na ma koo defal kooku baadoole la waane asan na la wóor na bu ci yàlla àndee ak yeneen bi ak Serigne Touba jëmmi sëñ Mbàkke Madina asan day dem te dara mënu koo téye lu dul suñu borom. acca ba tey comme ni leen ko waxee sànq ba léegi nag biti bi mu ngi mel nii sabaru pont waa mais ki may seen ni kàlla zee waa mais yow looy def ci biir. ah docteur nuyu naa la. loy def ci biti lay laaj. neena lu yeng rek la ko yëngal ko upp doole Assane mosul mootuma toog. waaw tabarkalla. damaa bëgg a xool buy muy xale bu xew bi sha allah. muy borom joxo sha allah. Hmm. nee naa docteur mootuma tok ndax sama yaram dafa yengu faaw ma génn xool li nekk ci biti. te Olof nday mo ne ku wal mburu ku di nga tudd deug deug neexul. te Assane Diop nag tabarkalla day doomu mam jaara di doomu sikam baw waaw dafa xew borom ci ko. kon xam nga ne bu wote sikam baw dina melni ni dof ba. waaye tamit neena say mbir dama neex ndax tamit ma fekk la ngay wax ma daal di këf sa micro ah, dama neex ndax tey nee naa fi dina mel ni mbaxalu pont rek mbaa mu mel ni rek yëfi vampire dama lay daal di jox sa micro rek daal di delluwaat ci biir xaar la xam nga lu ma jaaxal dama bëgg a def défilé tuuti ndax yow tey kan moo la sañseel yow sama papa nga yow yaa ma sañseel ndax dama yaakaar ne yàlla wax rek la la jagleel waaye yàlla jagleel la wax rek nee naa damay daal mais nag see xaaral ma yoot ndax damaa séen Assane ci oto bi te foog ma yoot ko waxtaan ak moom tabarkàlla maa ngi ko séen mu taxaw di waxtaan ak doomu ndeyam Fallou Sow ah di boo xamante ni kenn dootu ko présenté Assane nag damaa bëgg def lu doy waar fekk la ci oto bi avant ngay wàcc ñu def première partie avant ngay dugg ci biir tabaarkàlla bis bi ala daw mel ne bis bi rëy na addunaa ko doon waaj Sénégal di ko waaj si Kambaaw di ko waaj ba tey ñu egsi ci cappaandaw gi ñu bëgg cee ci ala bisimilahi rahmaani rahim eggali ci alhamdulilahi rabil alamin tey ban yëg-yëg nga am ci bis bi Assane waa asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp kenn ku ne sa tur ak sant di la jaajëfal Xaadim di nuyu El Hadj Lo El Vision di leen jaajëfal di kontaan ci yéen waa bis bi kontaan rek kontaan rek franchement gis naa ni nin ma taxawoo daal yàlla na jàmm yàgg mais nag li si biir après euh, dañuy dem dugg si biir defar ba mu baax. waaw Assane ma gis booba léegi yaa ngi nekkoon ci wàccaay bis bi booba léegi nga nekk ci gaa yaa ngi lay xaar ci biir mais nag dañuy dañuy briefing rek euh, li nga xamante ni si moom nga doon waaj bis ba tey nga egg ci waa sant yàlla rek sant yàlla rek. waaw waaw fi xam naa ne émotion bi mais nag bu fekkee ci biir ci lay dàq. loolu rek moo tax ma def nii. moo tey nga teewal ko ci bés moo tax ma teewal ko ci bis bi di profité di nuyu seen euh, PDG muy El di ko ñaanal euh, yàlla na ko yàlla defal jàmm yéen tamit yàlla na leen yàlla defal jàmm ndax gis naa liggéey bi ngeen di def am na solo teg ngeen ko ci yoon dama leen wax tepp tepp moo gën yuréet ndax yuréet pëng rek ko teg foofu dong la ma lay di ñaan yàlla seen bi. yàlla na ko yàlla jëmale ci cale yi gën a kawe ci barke Seydina Mohamed. lay day la la woo torodo. ku ci tukuloo sa ñaari loxo ca kaw ana tukulóor yi. alaaji bi ko Malika dinaa la way. sa yaay ji la ñuy jooy te nëbbeegunu. torodo. am nga ñaanu yaay. am nga ñaanu baay torodo. am nga ñaanu yaay. am nga ñaanu baay ah, torodo. ku ci tukulóor. sa ñaari loxo ay waay torodo mooy sama waay diggante ko dindi torodo torodo déggoo yaay sama waay wax leen torodo way ko ba mu neex diggante ko dindi ay waay torodo alaaji bi do malika wax def nga ne ma da nga ànd sa délégation daal di ñëw te tey euh, jëfe nga li nga xam ne euh, wax nga ko euh, Ndeye Gueye nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay kontaan naa waaw ni ma ko waxee woon noonu laa ko defee ànd nag sama wa délégation ñu ñëw waa Yaraax ñëw nañu waa Massa Poisson kenn desul ñoom ñëpp ñëw nañu waa Port Moldis ñëw nañu. tey jàll tey la nga gisee bés bi. bés bi xanaa kontaan rek kontaan nañ trop ci Assane ndax Assane li mu woote riis na torop te neex na Wow, wow. famille tey waa marché poisson ñëpp a ji. dëgg la. déwén nay sa baay. jàpp sunum réew. suñu la mën a sosoo. mu nekk li nga moom. sama yaay Matamba.

boleh nga sañse musuma koo xeeb dama ko zirig rek waa tey nga ñëw teewal li nga xam ne moo Assane Diop Massi macha allah nga ñëw teewal ko tey si bés bi tey lan nga yëg ci bés bi waa bés bi contentement laa ci am euh, ndax ki ma fekk si fii dafa baax bëgg ma yëg ma te bëgg boo gisee nga koy fay moo mu jaral ma déplacement jaral ma dérangement. waaw dama la sa loxo rek ñu daal di ba euh, la. waaw Assane baax yaatu moo tax ñu wuyu si ko def dérangement en tant que coiffeuse de la Sicap Mbao ñu ma koy wax aji design ànd ak sama doomu nday Pendis waa bi ñu ñëw rek sargal ko ba mu neex. ay naxa sama seere. aw buru gërëm. ay naxa sama seere. yow yaa fi ne. wuy na koy lu la neexoon. daa cee ba sal. oh oh na koy lu la neexoon. waaw waaw na koy lu la neexoon. wuy na koy ooy na koy. woo billaay woo nga gor woo nga garmi noga njaay Sénégal njaay gaynde njaay ay nit njaay séeri asin ndeela dafa lu la neex yow yaa fi ci aawa buuru këram dafa lu la saf aka saa Mansour ku ko bokkal xoolal ñaari def leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen Mansour su ngeen su ngeen su ngeen nogay su ngeen ko deful ni ko yàlla def wooy nogay mu jaaxal leen waaw waaw waaw mu Aziz lu mu la jaral bàyyi yaay bàyyi baay say ko soxla ma ñëw kaka kaka mu ku nangu nang gundang gundang gundang mu sëñ madam ma nekk ci ñaar da ngeen di di kaf di ree di bootante di bootante doga sama sër ay waay naxa sama sër defal lu la saf ay waay naxa sama sër wuy defal lu la neex waay naxa sama sër defal lu la saf waay ay sina sasa ay sina sasa ku sant mbay jaay sa loxo ca kaw Cheikh Mbaye sama yaay ja sama yaay ja di waay ku sant Mbaye ja wa dara nuyu na la aw Cheikh Mbaye sama yaay ja wala ngir nuyu na la waay ku sant Mbaye ja may basu may basu aw Cheikh Mbaye sama yaay ja may basu may basu wa daaru jolof jaay leen aw Cheikh Mbaye sama yaay ja jey waay ku sant Mbaye ja sa dama daaru aw Cheikh Mbaye sama yaay ja takku day jaaga ay waay ku sant Mbaye ja yaa sama waay aw Cheikh Mbaye sama yaay ja aw Cheikh waay ku sant mbay jaayul awa seex mbay sama yaay jaay góor gi wala gi waay ku sant mbay jaayul awa seex mbay sama yaay jaay waay ku sant mbay jaayul awa seex mbay sama yaay jaay waay ku sant mbay jaayul awa seex mbay sama yaay jaay yow ndamal daaru yow ndamal daaru yërëm sëñ noonu. awa Cheikh Mbaye ah ci. bëgg Cheikh Modou Kara Noreyni waram oh! na way na sukura Maliki maa yërëm seen doon seen doon du nelaw Alaaji Bamba Dieng Sala taalibe Seexul Xadim billaay wallaay tey moo way garmi cey wàññi ko jug liin jar ndamal daaru bakee lalla bakee lalla ñëwal bakee lalla ñëwal bakee lalla ñëwal yaa sama waay ñëwal ni wallaay mooy sama waay mbokkum nday na koy njaay mbokkum nday asindela mbokkum nday alaaji mama eh. cer mam cerno daamal daaru ah. aka wayal gaay ci suuf waay nonooy ma alaaji mama taaliba seexul xadiim mam cerno batare cerlo nar batare fobal jolol batare alaji mamma batare jaksala cerlo cerlu munar batare cerlu munar cerno batare cerlo nar cerno cerlu munar batare cerlu munar cerno cerlo nar batare cerno ndeysaan alaji mamma jaksala ana alaji mamma defal lu la neex ba kellal alaji waaye eh, alaaji mama alaaji alaaji ay ku jooyloo ay ku lay oh, oh. alaaji xale bës baa ngi alaaji alaaji xale bës baa ngi alaaji xale bës baa ngi alaaji xale bës baa ngi alaaji li may woy ko moom ey waa Italie alaaji xamal tax neex ma da ngaa yor di ko Seydina ki yàggal yi mbali ñëpp te ci boole wax nee la xama yërëm sa noon laa yërëm alaaji loo am say waajur nga koy jox man Assane xam naa ci dara dee benn fan def nan ko bu dee ñaari fan def nan ko jag saala way ndeer alaaji jag saala way ndeer mbokku ndey aada jag saalaay samaam jag saalaay samaam alaaji xale bës baay oui alaaji xale bës baay yow jëlal yow jëlal alaaji xale fay na la su ci loo waaw gi tey moom danoo ñëw rek pour Assane parce que Assane moom dafa doon koo xamante ni du càmm ci ñun bokk benn deret kon tey ji bu xewlee dañuy ñëw assister jàpp ci bis bi ba mu baax quoi loolu mooy suñu teewaay ci bis bi waaw. bokk ci staff Assane chaque jour nga wax ko dama Assane dama bokk sa staff yow du ma la mës a xeet barke Seydina Mouhamed ceeb neex ci yow baax Fallou lii neex na dama bëgg a moo la fekk baax ci man bu Macky Sall ñëwoon sax barke Seexul Xadim du ko jëndee kenn nogay defal lu la neex ba kenn laal lu la neex nogay defal lu la neex wuy sama waay wuy nogay defal lu lu la sab bilaay dama la dama la dama la eh. ay waay woo Aziz dikk na Sëriñ Aziz ñëw na Sëriñ Aziz borom jasineer borom montur nago borom jasineer yi borom jasineer yi borom montur borom ceeb borom seefa bi nago yoo nago dangay jaawale woo na ma la ko waxee woon dama fee sama xarit fekk fi sama doomu ndey fekk fi ki nga xam ne mooy sama chauffeur nuyu naa la fay naa la fay naa la sama xarit tey ma ñëw fekk la fi si bësut Assane Diop bi waaw loolu moom borom baax la quoi lii moom moom kese moo ko mën a am ndax nit quoi mais bien euh, safar kalandoo ak artiste benn la rek dañuy jàppalante quoi métier bi moo demee noonu mais man damaa mënewul wax quoi loolu moo tax ma ne loolu moom mën naa ko tënk foofu quoi. ku ci bëgg Serigne Babacar Sy Malick wal Muxtaar yaa Sidi Bar. Baye Fall Baye Fall taalibe Serigne Babacar yaa moom loolu. yaa fi feeñeel di. te ñëpp la war kuy taalibi Serigne Babacar Sy Malick day Diallo Serigne Babacar Sy nee na su ma rusutoon sama baay ba Maodo cey ku ma faata ma wuy laa oh. ma wuy laa ku taalibe Cheikh sa loxo ca kaw may xool taalibe Cheikh cheikh day gëm yàlla boroomam xamal tax ma lay wax loolu taalibe cheikh fonk na juróom waxtu yi fajar tisbaar takkusaan timis gee teg ci sava witar taalibe cheikh day yennoo naan allah allah oh! allah allah allah allah yàlla kenn la day jàlla a baay a baay da ngay defal la neex day jàllo yow maa ngi yow après day jàllo day jàlloo siri Adama e xam nga ki ngay woo mbay fan lay woo woo ngeen gar woo jambar woo bete bete sa yaay soo xoolee ni ma ñaaxal ma wa di géej mbay si mbay si mbay gan yëngatul. wuy ay dama jaay ay yaay. na coxo coxo coxo daas ba ca kii wura ba ca coxo coxo ergal eh, feceli coxo dogo fali ma wa jor kumba samba ya jalor dogo eh, la bergor cibu